doonatul showbiz lii doonatul musique nit liggéeye gan ngay copier nit ki léegi nag gars yi man naa nangu man mën naa nangu man boss Dey Negri mën naa nangu maanaam mën naa nangu man mën naa nangu maanaam Wally Seck def benn affiche ñu génnandoo ci même même même bis bi son ndax affiche bi gis nañ ko amul problème mais li ma munta d'accord mooy Wally Seck génnee son xamul ban soxlay way mu dem way son boobu am na lu nekk ci biir mais dinañ ko régler dinañ régler problème bi ba mu régler am na loo xamante ni jaarul yoon gars yi xel xalaatu ko mais Wally am na ay technicien Wally am na ñoo xamante si nii mën nañ ñoo res loolu te man xam naa ne lii dina dakk léegi plus tard parce que dinañ jóg ci loolu dinañ jóg ci loolu lii doonutul musique nit gëm leen sa bopp fu ne jaar ngeen fa pour daaneel Wally Seck booy bi mënu leen koo daaneel Wally Seck mooy kin bi kuy téye micro mooy sa baay képp koo xam ne téye nga micro di way Wally sekk mooy sa papa kooku dafa liggéey papam da koo tataan ci liggéey soxlawul di jël musiku jàmbur wala mu lay copier li mu wax Birane rek ndax may nga ma ko pour ma def soo ci Youssou Ndour moo waral soo bi sinon Wally dina way ba dee te doo dégg ma way soowu mais Youssou papam la mu war a def loolu mais bu leen ko ci copier idéom la bu leen ko copier ci idéom Wally Seck kenn mënu koo daaneel Sidi nangu nga fi wayu jàmbur bu nekk mais bàyyil Wally du sa morom amoo benn way boo way boo xam ne Sidi Diop ko moom ay fari yoolee Pape ko moom ah buuse mooy saaliw Pape Diouf ko moom ku ci dawur maar nongoloo ah yow loo fi way Sidi loo xamante ni nit moom na ko sàcc nga fi soowu jàmmoor ñu belente sa nga dindi ko yaa ngi copier Wally Seck bàyyil Wally Seck mu dund bàyyil Wally Seck mu noyyi yow doo musicien yow waykatu sabar lan la xamee demal wayi sabar ak simbu gaynde waykatu kermes ga bul xëccoo koo xamante si nii papam da koo taataan musique bi mu am ci doole mayel nit ñi jàmm dinañ ci jóg nag tey taañaa laa invité woon mais dama koy bàyyi ten bi sii di jóob la woo naa Matar suba teel directement ko woo Matar suba teel man woo naa ko direct ne ko liiru dëkk dëgg du yoon demal nga liggéey yi moo gën lii woo naa Matar suba teel léegi laa ko fekk Matar suba teel dafa ñaaw liggéeyi leen gëm leen seen bopp Wally sekk moo fi nekk ku seetaan vidéo bi bindal ma Wally Seck yaa fi nekk merci beaucoup gars yi. salaamaaleykum salaamaaleykum gaa yi tey sama xolo fees damaa bëgg a wax tuuti Sidi Diop parce que dama kaa yërëm Sidi Diop xoolal bu njëkk ni nga meloon ci Sénégalais yi Sidi Diop xoolal sa musique bu njëkk ak léegi. sii di xoolal say soirée bu njëkk ak léegi sénégalais yépp dañ laa bëggoon taf la si seen bopp ndax Wally Seck mi ne woon yow frère am nga nga jël ko taf ko sa bopp mais sii di xoolal léegi sa entouragement baaxul comme que loo way ndeysaan dama laa yërëm ñu ne wayu jàmmoon la danga koo sàcc te yow li ngay yuuxu naan fari yoore dafa bëri fari yoore kañ lay fer kañ lay fer bu mu juddoo ba